démarrer quoi. Mhm. nga baal ma parce qu'on m'a dit que mu ngi en ligne bu ñu dellu see on reprend par toi euh, salaamaaleykum euh, Khadim Ngom. maaleykum salaam Mamadou. di la dalal jàmm may fàttali nii euh, yaa ngi teewal coalition ànd beesal Sénégal ci débat bi boobaak léegi yaa ngi ñuy déglu lan mooy kàddu yi nga xam ni fas nga ko yéenee sànni ci waxtaan bi. waaw tout d'abord maa ngi euh, remercier bu baax a baax a baax euh, invitation bi parce que je devais être euh, vraiment présent mm -hmm. dans le plateau mais des soucis de de temps mhm. dañoo nekk ci campagne électorale avec la coalition And Besal Sénégal mhm. ñuy def benn tournée au niveau national euh, pour dem ànd ak ñu yi présenter leen dooleel leen dans les au niveau des départements Mm-hmm. donc actuellement maa ngi soo Tamba pour dugg jaar Koungheul. Mm-hmm. pour dugg actuellement ni Kaolack pour dem Nioro. Mm-hmm. donc euh, ci oto laa nekk di wax mais normalement tey foofu la ci plateau bi. ak sama co yi nekk fii. donc euh, euh, Mariama ah, donc Ablaye ñoom laa xaw a jàpp. parce que ak Samba Samba Ndong teewal fii coalition takku wàllu. donc mhm. mais maa ngi rafetlu débat bi euh, di rafetlu aussi tamit thème bi ngeen choisir tey. Mhm. Euh, qui concerne la jeunesse. Euh, damay faral di wax tout ce qui se fait pour la jeunesse sans la jeunesse et contre la jeunesse. Mhm. donc jeunesse bi dañ leen war a impliquer ci comment les choses publiques. donc sont gérées. donc c'est très important donc di ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax débat bi. mu ngook dégg nañ la jamono ji yaa ngi ci euh, booru euh, est bi ak euh, sud est bi ñuy nuyu bu baax sunu téléspectateurs yi nga xam ne ñuy seetaan à partir de là-bas mais xam nañ ne aussi yéen it ci biir campagne électorale bi daanaka mun nañu wax ni pratiquement toute l'actualité est concentrée autour de ces quelques coalitions mais coalition ànd euh, beesal Sénégal aussi euh, mu ngi amal campagne bu euh, am solo gis nañ ko ak seen leader di Abdoulaye Sylla tey ji ban jàngat nga am déjà ci déroulement processus bi ak fii ñu toll nii tey nga xam ne ñu sommes à la dernière semaine de cette campagne électorale waaw ñun de liñ ci mën a li ci mën a liñ mën a constater liñ ma gis ci campagne électorale bi nekk na une campagne électorale comme président de la république mi mi jiite ñëpp appel bi mu defoon euh, bi mu adressé bon quand il s'adressait à la nation. Mhm. li woote woon yaakaar naa ne opposition. Mhm. ak pouvoir ñu ci bari fekk nañ ko ci jàmm ji. Mhm. ci dal bi nit ñi bu ci nekk mën a présenter ce programme pour que ñu mën a am une assemblée nationale de rupture comme l'a si bien euh, proposé notre tête de liste. Euh, à l'occurrence le président Abdoulaye Sylla xam ne ne tey ñëpp constaté nañ ne ne moom mooy révélation élection yi mhm. parce que euh, Sénégal dafa baaxoo tamit euh, ñi ñuy jiite wala ñi ñuy yor en général di wax rek wax ji moom dafa bari mhm. mais le président Abdoulaye Sylla ñëpp xamee wuñ ko ci wax moo ngi soog a génn sénégalais yaa ngi koy soog a découvrir mhm. ci jëf lañ koy xam te da doon jëf dina bët pucc takkal nañ ko nag lu nekk jiiñ nañ ko lu nekk am na ñoo xam ne sax dañ doon génne yeneen photo jàmbur di ko def di ko di ko teg naan fii mooy Ablaye Sylla wax ci luñ ci du mus wax ci loo xam ne ne nii ci deram lu musul lu luñ dut wax doomu aadama wala luñ dut wax nit ku baax donc moom ci boppam mu am retenu am gëm-gëm am lum gëm dañ ko yàgg demal Sénégal liggéeyal Sénégal di dox ci social donc loolu moo ko poussé tey mu génn wax ak sénégalais yi leeral lu bari mais Ablaye Sylla moom ñu daan waxal wala Ablaye Sylla moom ñu daan daqal kii mooy Ablaye Sylla donc ñu bari nag sénégalais yu bari amoon ci euh, benn benn Sénégal nit ñu bari ñu ko doon daqal am ci déception. Hmm. déception bi mooy li nga ko doon tuumal li nga ko doon waxal génn ay photoom génn ay yeneenam lu ci bari donc loolu yëpp doonul dëgg mu wote nag. Mm-hmm. assemblée nationale de rupture. Mm-hmm. bu ñu naan assemblée nationale de rupture ñoo ngi gis ci côté pouvoir bi ñii di tirer. ñii mm-hmm. pouvoir bi ñoo ngi bëgg a gouverner. ñu ci bari xam nañ ne ñoom amul majorité li ñu bëgg a def duñ ko def. opposition bi de l'autre côté xam nañ ne tamit ñoom ànduñoo pouvoir bi donc lu ci bari dañ koy jéem a sooxeel. parce que tamit politique lañ nekk. on, on, a un gouvernement qui gouverne et une opposition qui s'oppose. Mhm. Mais quand il y l'intérêt supérieur de la nation, nous présentons. Donc, dans ce cas, il va falloir que nous une troisième fois qui prône la rupture, une assemblée de rupture, assemblée bu bees, amaat député yu bees, amaat mhm. justice yu bees, loolu le président Abdoulaye Sylla la woote assemblée nationale pour ñu am fa député yu bees am fa taxawaay bu bees de telle sorte que loi buy jàll wala lépp loo xam ne dafa lépp da xam ne ne dafay jàll ñu xool ba xam si l'intérêt supérieur de la nation mm-hmm. moo ngi ci ñu mën ko jàllale bu ci l'intérêt supérieur de la nation nekkul loolu foofu assemblée nationale ñun dañuy banque suñu loxo ndax intérêt ak askan bi ko privilégié wuñu euh, comment dirais mm-hmm. euh, li askan bi soxlaal donc loolu moo tax ñu bëgg assemblée nationale mm-hmm. xam nañ ni xam nañ ni xaadim. Euh, dafa euh, nekk pour dem ci jeunesse mm-hmm. parce que da ngay da ngay gis politiciens yi kat fi nekk nii benn tête de liste moo fi créé deux mille emplois. Mm-hmm. amul. lu Ousmane Sonko Macky Sall bi mu koy créé dafa fekk mu jël réew mi. waaye waaye yéen tamit bu ngeen sosee 2000 emplois dafa jaaree ci entreprise bu ngeen teg ah nekkul aussi politique boo xam ni da ngeen ko doon mener de prime abord pour euh, justement euh, des questions de politique il faut le dire comme ça. ma ne bu fekkee ni 2000 emplois yooyu ngeen di wax aussi dafa nekk ci cadre professionnel parce que entreprise ngeen yor di ci employé 2000 sénégalais certainement mais nekkul aussi politique boo xam ni sur le plan politique lañ Mm-hmm. entreprise am la yor musul am poste état. état mm-hmm. musu ko état musu ko jël. musul mm-hmm. am post poste ministre musul am dara loo xam ne nii jumtukaay état la. dafa am entreprise di ko doxal. di gagné ay marché donc te fii mënoo fee gagné marché te tant que le code des marchés publics encadré wu la. ba nga mën a gagné marché. donc moom wane na ay preuve am ci la création d' emploi. te état mënul joxe emploi. état day créer les conditions nécessaires pour ñu créer emploi da ngay gis boo demee sax suñu constitution mhm. le le droit à un emploi sax yooyu gisoo ko fa mhm. l'état a l'obligation nag de créer de conditions nécessaires pour ko emploi yi ñëw mhm. képp benn politicien bu taxaw naan maa lay créer emploi maa lay jox emploi loolu buñ Sénégalais yi bu ñu ko waxee dañu xam ne dañuy wax ndaxee bàyyi la c'est le secteur privé qui crée de l'emploi l'état nag mën na encadrer xam nga mën na accompagner. Mhm. créer le condition nécessaires pour que secteur privé bi mën a créer emploi. Mhm. mais xoolal ces structures de DR bi Macky Sall teg xoolal euh, ces structures yoo xam ne nii tey dañuy financer wala accompagner les jeunes pour ñu am auto emploi mais mhm. xool est-ce que ces structures son efficaces. non je ne le pas. parce que bu efficace woon tey du ñu continuer continuer continuer continuer waat di financer waat te xaalis boobu noonu du am jeexital. parce que ñi ngi koy jox mooy seeni militant ak ñoo xam ne nii tey ñoo leen yu jàppale sur la terrain politique ñooñu lañ koy jox nag ma jox la benn exemple boo fekkee koo xam ne nii tey. waaw ñu daanelee foofu xaadim waaw. Mhm. boo fekkee koo xam ne nii day xool tab les marchands tabliers. Mhm. ñoom xam ne ne tàggat nañ leen tàggat nañ seen bopp ci auto emploi. Mhm. dañuy jaay muy dox suba di jaay muy dox ñooñu bu leen joxee financement yi. yi DER di joxe wala fonds ay yooyu noonu yu ñu joxe. ñooñu danañ mën a demal seen bopp. mais boo fekkee sa militant mu toog di naan ataaya naan aw ma liggéey ja di gën a université Cheikh Anta Diop wala université Gaston ne aw ma liggéey. Mhm. kooku tàggatuñ ko ci auto emploi. Mhm. boo ko financé day nekk xaalis ba ñëw toog. Mhm. moo tax problème yi lañ am est-ce que ces structures sont donc je ne le pense pas. jaajëf donc dañuy jox réew mi. wala dañuy jox. ñoo xam ne ni tey. Mhm. exemple lañ ci la création d' emploi. Mhm. ci secteur privé mhm. comme le président Abdoulaye Sylla de liste. de la création d' emploi ici au Sénégal. di ko jaajëfal bu baax mu ngook di la jaajëfal bu baax euh, Khadim euh, Ngom may fàttali ne vous êtes euh, le président de la jeunesse ànd beesal Sénégal di coalition boo xam ni. Abdoulaye Sylla moo ko euh, jiite euh, bokk itam ci jongante yi jëm ci législative yi ñuy waajal fii rek 17 euh, novembre doon àddu ci campagne électorale bi ak taxawaay bi nga xam ni candidat am na ko offre bi nga xam offre politique bi mu indil Sénégalais surtout jëm ci emploi loolu aussi